koy actuellement ci fi ñi leen rawale ci hôpital yu Kaffrine waaye fi nekk nii hôpital lu Kaffrine jàppal ne fi nekk nii dañoo fees del del del del ba li nga xam ne sax moom lañuy yéen sax dañuy rawale ci poste santé yi am sax ñoo xam ne jamono ji euh, ñu ngi ak docteur Kouakou euh, xamante ne si ñoom ni moom moo di ci euh, fi nga xam ne mooy hôpital régional fi mu nekk nii ñu ngi nii jàkkaarloo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ñi nga xam ne ñu ngi tëdd nii. ñun mën na sax bu léegi ñu leen euh, laxas ni ay mbuus mu di loo xam ne lu tege day war la je me rappelle accident yi gën na am Kaffrine mhm. parce que maa ngi fàttali en 2005 fu mel nii même même même accident même même bi ci la amoon 23 morts en 2005 euh, tey nag euh, lu ni mel tamit encore ñëwaat 38 personnes fanweeri nit ak juróom yoo xam ne tamit ñàkk nañ seen bakkan parce que wax la ni mhm. ñaari yokkaat na ci am tamit juróom ñaat fukk ak juróom-ñett maanaam yoo xam ne tamit seen i gaañu gaañu tamit jéggi na dayoo. bu ñu mm-hmm. sukkandikoo ci liy naa sapeurs-pompiers bu Kaffrine mm-hmm. nga xam ne tey euh, xibaar bi moom lañ ci àndal léegi ñu ngi ak ak MSF bu Kaffrine ñu ngi koy xaarandi léegi am ko pour avoir donc sa réaction. Euh, mu di loo xam ne euh, fi nekk nii man mi lay wax rek maa ngi jàkkaarloo fi nekk nii. juróom benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar ñett ñoom juróom ñetti néew maa ngi jàkkaarloo ñoom bokk ko ne ñi nga xam ne moom lay rawale mm-hmm. ñëpp ngi tëdd ñu suuf leen ay saako ñu ngi wër ba xam amul ñeneen ñu de ci biir may dafa laa fi nekk nii maa ngi ak euh, jàkkaarloo nii juróom-ñetti néew yoo xam ne maa ngi benn mètre moo dox sama diggante ak ñoom mm-hmm. mu di loo xamante ni euh, métti na métti na lool lool lool lool mm-hmm. maanaam daal euh, collision maanaam ñaari oto yi nga xamante ne ñoom ñoo daje métti na lool fi nekk nii Euh, bis bi euh, dañoo mbëkkante mbëkkante bu jéggi jéggi jéggi jéggi jéggi dayoo. Mm. yaa ngi dégg euh, docteur Ka mooy wax noonu sax voilà yaa ngi dégg docteur Ka foofu mooy wax noonu mooy wax noonu waaw docteur Ka mooy wax noonu yaa ngi koy